allahu akbar mm-hmm. di jë mm-hmm. baax ak man seet bi mm-hmm. ku yàlla na la dimbali rek daal seetal lii mooy seetu ramlu képp ku ma seetal dama lay gis ba gis ab sarax seet bii amul benn sëriñ bu ma ko dàq Sénégal lu si ëpp sax dama naan ku ma si nar a seetal te gisuma la yàlla bu mu la seetal lii may ramlu mag ñi lii la naan seetee lépp lu ñu bëgg a xam si àdduna moo xam lu lu lu waaj ñëw la wala lu teew man mii mm-hmm. boo gisee mm-hmm. nit ñi di ma topp ci wàllum seet mm-hmm. man seet bi moom laay seetee tomb yi mooy wax nit ay jafe-jafeem mooy wax nit ki ay gàllankooram lépp loo xam ne nar na kaa dal waat naa ko ko seet bi képp ku ma ko defal ma gis la ba gën a soxla nag ma ki nga xamante si nii daa gëm ni seet amut oh. ndax am na ñoo xamante si nii ay sénégalais lañ mais yoruñ jukkee sénégalais parce que ñoom dama bëgg def seen bopp ay tubaab. Mm-hmm. tubaab bi sax dañuy seetlu. Mm-hmm. tubaab mm-hmm. sax dañuy seetlu. di jë seet bi ni ma koy seetee. naa xam sa tur. xam sa tur yaay. su ma ko jëlee am su ma tibbee suuf si wax li may wax ba teg ko ba tomb tomb yi may tomb naa xam kii lan may ay jafe-jafeem tey dinaa xam kii lan may ab saraxam ndax seet dafa war a génn sarax man seet rawaxaan lay seet man seetu raw xaan laay seet